la suite de cette euh, confrontation qui s'est bien déroulée, c'est que nous avons une satisfaction. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la stratégie déployée a donné ses fruits. Vous retiendrez juste une chose. Et nous avons tous entendu la partie plaignante déclarer qu'elle était empressée de faire cette confrontation avec l'inculpé. Et qu'au qu jour de cette confrontation, des preuves allaient sortir. Malheureusement, ce qu'on a vu, a constaté, c'est une partie plaignante qui s'est mue dans une stratégie de silence absolu. Juste rappeler que cette posture ne peut pas être la résultante de la posture du, de l'inculpé. les deux parties n'ont pas la même attitude. Les accusations ne sont pas les mêmes, les postures ne sont pas les mêmes. Donc nous prenons l'opinion publique nationale comme internationale à témoin que ces personnes qui s'activaient, qui déclaraient partout qu'au jour de la confrontation, les preuves, les preuves allaient fuser, aucune preuve n'a été sortie. Aucune aucune preuve n'a été sortie. Au contraire, hormis la stratégie de silence qu'il a gardée à la question ou aux questions qui ont été posées par les avocats de Ousmane Sonko, c'est un lot de contradictions qu'on a décelées dans ces, propos. Euh, non, il y avait pas un incident. Il n'y avait pas cet oubli dont vous faites allusion. C'était juste une panne qui a justifié cette pause. C'était juste ça. waaw donc li ñu mën a wax si confrontation bi nga xam ne tey jii moo ñu jëlal waxtu bi yëpp ngeen gis dañuy sant yàlla. di wax rek ne stratégie bi nga xam ne moom la ñu déployé ñun am nañ si satisfaction totale. di jël rek opinion publique nationale comme internationale à témoin ne leen. déggoon ngeen leen ñuy wax si njëlbeen ne seen mbëbëb seen yàkkamti yëpp mooy confrontation bi am ñiy wax naan bu confrontation bi amee preuve yi dina génn tey jii de suñu étonement mooy preuve yooyu ñuy wax gisuñu si benn benn preuve nag génnul benn preuve amul vidéo amul audio amul lenn au contraire li ñu gis moom mu adapté tey mooy dafa ñëw indi silence te ñun ñu jàpp ne ki mel yelloo pour def loolu mooy ki nga xam ne dafa am présomption d'innocence ndax yoon a ko may mu def loolu waaye ki nga xam ne dafa ñëw war a indi accusation te doon déclaré ne bés bu lii amee mu indi preuve yi dafa ñëw garder silence. moom moom laa expliqué c'est-à-dire nangul wax boobu dafa am lu ko indi ndax si njëlbeen dafa ne ki nga xam ne dafa jël. accusation teg si kawam ñu jàpp sax ne lii ak lii moo ko waral kooku du ko mën a tontu. mu ne tamit ki nga xam ne lii ak lii lii moo indi démarche bi du ko tontu. donc tey jii silence suñu client dafa am mbëbët dafa am stratégie boo xam ne moo ko lal waaye nag dama jàpp ne ki nga xam ne moo ne moom mooy parti bi topp indi ay tuuma bu paree ne dina am ay preuve yu mu génne tey ji génnewul preuve silence la indi yellu waxuma sax waxu silence mais ay contradiction yu dul jeex lañ na ñëpp jàpp loolu non li non li juge bi mën a mujjee wax loolu yaakaar naa du loolu lu ñuy génnee fii li ñu mën a jàpp daal mooy li ñu waxoon si njëlbeen ba tey par rapport ak suñu stratégie par rapport ak li ñuy xaar si dossier bi tey la ñu gën a ne am am qualité tey la ñu gën a nekk à l'aise te li ñu njott ñun bu dee daal droit rek la ñu wax dossier bi noonu lay am incha allah non mooy li ma wax xam nga décision boobu juge bee koy jël te donc loolu souverain tam la ñu nangul ko ko waaye dañ ne ñun ay juriste lañ lii ñu gis ci dossier bi te mu nga xam ne amul benn preuve bu ko lal au contraire sax bu ñu jàppee ne certificat médical bi nga xam ne moo war a tax ñu topp nit viol dafa ñëw setal suñu client jàpp nañ na noonu la nekk di traîner entre les mains de la justice ak yi nga xam ne de xam nga mooy li may expliquer booy booy wax droit droit la. maintenant conséquence su événement yi am loolu leneen la mais man dama ne dossier boo xam ne dañ jàpp ne viol la ñu ñëw am certificat médical bi setal suñu client preuve yi ñu doon wax ne am nañ ko vidéo yi benn génnul dossier bi non lié la war a am non non altercation altercation amul audience bi déroulé na normalement amul woon benn incident maa ngi leen di gërëm jërëjëf